bokk Samagal euh, ñu ngi ci réy ci jeexantal bi ñu ngi fii ci box bergerie alhamdulilah Siré ziar naa la. Euh, delloo ziar euh, Cissé maa ngi ziar mbokk éleveurs yeeg mbokk internautes yëpp di ziar mbokki exposants yi di ziar waa Thiès di ziar mbokki sénégalais yi di ziar mbokki àddina yëpp waaw. ñëw naa sa box fekk si booy bi ñu waxtaan ci xar yi mais tey li ma la bëgg laaj rek en tant que éleveur ban impression nga am ci foire Réy bi. ah macha allah wax naa ko waxati ko wax waxaat du bëri wax waaye sunu xol bég dañoo kontaan euh, xol yëpp belli na comme ni ma ko waxee président Khadim Fall démb ak barki démb ak dépp ma duusee ci foir beeg léegi ñëpp kontaan nañu macha allah organisation bi jaar na yoon. pour première fois ñu gis yëf mu tàbbi ci loxoy xale mu def ci lu raw fuuf la mag ñi daan def donc ça ça se voit que war mën a gën a jox jeunesse bi confiance aussi ñu gën leen jàppale ci seen liggéey président bi nag ma xam ko démb tey soo ko ñëw muy ku baax ku bëgg lu baax ku jàmbaare ku dëgg ku nite ku yàlla baaxal yàlla dogal mu doon président association REIT bu Thiès regroupement intensif des éleveurs de Thiès jiite ko euh, bii di premier édition mi ngi soog a foire ñu koy ñaanal nag yàlla na yàgg ci ay loxoom moom ak ñi mu àndal ak ñi mu am yëpp yàlla dool yi ko defal ndam ak sutura mais lii moom biñ ñëwee gis nañu lu kawe suñu njort insisté woon na pour ma exposé waaye du ma ñëwee wax dëgg yàlla dama dama dama xaw a yéemu pour pour pour wax loolu ndax yaakaaru moon ne fii la organisation bi toll ndax yàgg naa dem ay foire ci région yàgg naa sax ñëw foiru Thiès waaye bii moom dafa dafa dafa dafa dafa romb daar suñu jot macha allah. donc xam nañ xam nañ li li mu daj pour lii am ndax xam nañ li ci organiser foire waxatuma laa nga def lu mel ni lii du liggéey bu ndaw kon ñu ngi koy delloo ñaanal yàlla sàmm ko te gën a yaatal gannaawam. en tant que éleveur bu mag lan lan lan mooy njëriñu exposition éleveur ci foire. Euh, njëriñ li bari na buñ ko doon lim fii lañuy ñuy fanaan waaw bi ci jiitu yaa ngi nii nam ma ba dee fukki at nga bëgg maa gis gisoo ma yaa <laughs> benn ah, maa ngi saafoonteeg ay mbokk yoo xam ne ci réseau sociaux yi la ñu lu mel ni Facebook ak WhatsApp ak yu ni mel Instagram. ah yàlla dogal ñu mës a gisee lii rek mën a boole nit ñi parce que boobaa day doon euh, mbooloo mu daje doon ay xar yu daje nga gis ay junniy xar yu nit yu daje ngeen di déggante mësu leen gisee di saafoonte loolu alal ëpp ko doole waaw ak yeneen ak yeneen yoo xam ne mën nañ ko lim mais boobu moom man daf ma cee doy sëkk leneen lu ci yokk nag bonus la. Hmm. noo gisee xar yi ci ban état lañ toll. macha allah xar yi stressé wuñu ça veut dire que climat bi baax na. Euh, fi ñu defee foire bi baax na gars yi yombalal nañ ñu aliment bi yombalal ñu ngooñ wi te loolu yëpp gannaaw yàlla njàmbaar teg président bi la nañ ko wax ndax yàgg nañoo exposé du tey lañ mës dem ci foire yi ah euh, gars yi mel nañu jàmm sécurité bi doy na man daal mën naa fee bàyyi samay xar bañ fee bàyyi kenn te bu ma demee bu ma tëddee sama kër nelaw te ku war xam xar yi xam ni yow sax ñoo ma la gënal <laughs> daf leen lu neex yéen éleveurs yi. ki leen daan xar rek dañ ko fi ne ko mais garaaw. c'est juste pour sànni xeer waaye. waaw borom baax moom tabaarkalla waaw. bergerie alhamdulilah fu mu toll ci liggéey parce que gis naa maal rafet. ngay foog ñoom. waaw ñoo ngi ci ñoo ngi ci. waaw te incha allah fas yéene woo teggeegum tànk bi dañ cee nekk rek. ba fu ko yàlla yemale ñun itam gannaaw ci loxo way juru lañu ko jëlee ñu bàyyi ko rakk yeeg doom yi rek ñoom itam ñu wéyal loolooy sunu sunu yéene ak sunu bébét nit moom yàlla deful lu sax waaye ñu yàgg ci di ko doxal ba ñeneen fekkuñ ci doxalee ko ñu gën ñun ni ñu ko doxalee yóbbu ko fu gën ak fu gën a sori ñun fu ñu ko yóbbu incha allahu taala ndam ñun ñoo ko jëlee ci loxo way juru yi indi ko fii war nañoo rafet njort ñi ñëw suñu ginnaaw ñoo ñu mën foofu loolu la ñu ñaan yàlla seen continuité ba jour alhamdulilah tak jonni tey yàlla dogal na man maa nekk ca kanam waaye suñu équipe du ma am seen fay feek may sàngoo suuf waa li nëbbu moo ëpp fuuf li feeñ man dama ci dama ci bu doon cent du ma ci sax zéro virgule zéro un lu ndaw laa ci toq waaw ñoom lépp ñooma su ma limee damay juum mais ba jour alhamdulilah ñëpp la bergerie sénégalais yi la bergerie parcellois yi la bergerie ñëpp la yaatu na en tout cas ubbi nañ sunu bunt ku bëgg nañ ñëw lu ñu yàlla dénk néew na bari ñu jéem a bokk ak yow liggéey bi yaatu xar yi yaatu te j'invite les éleveurs à ce que ñu jéem a roy li fi mag ñi bàyyi nañuy partager au maximum gën a yaatal mbir yi xam daraa ngi ci dana wàññi chômage bi ci xale yi dana wàññi mbëkk mi dana wàññi leneen ak leneen te jur li muy jàngal nit bari na man jàngal na ma muñ ndax am xar investir si ay millions mu xëy dee <laughs> te doo ci mën dara doo xam koy attaqué ndax cooba rek sunu borom la kooku yàllaa ngi lay jàngal muñ te yëgoo ko jàngal na ma yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne yar na ma daal en quelque sorte donc liggéeyu ndaw la te métier gënu ko noble fi nabi alayhi salaam jaar Seydina Mohamed ku fa yàlla jaar rek bëgg na la waaw yàlla nag wàccoon ak ñun ñu éleveurs yi nee naa nga juddu di nit yàlla wàccoon ak yow ñu dox tuuti mu boole Seydou xeetu Seydina Muhammad alayhi salaam wàccoon ak yow ñu dox tuuti mu jël sa métier def ko muy càmm yàlla nag xanaa <laughs> ñun deseletuñu dara ñun nag ñooy jaam yu xeeb yoo xam ne war nañu sant yàlla fu ñu toll moo war a sax pour bergerie bi alhamdulilah bi waaw loolu rek la waaw. yaa ngi préparé opération tabaski eh waa sama gaal waaw ñoo ngi wi place d'habitude bi bu gàllankoor amul ren ak travaux yi am ci réew mi suñu président bi gas na fépp nañu dimbali sonn nañu de waaye ñoo ngi woon fële zone A wetu cinéma El Mansour rek soriwul ak clinique internationale bi dara foofu lañ daan nekk waaw waaye nag nañu dimbali daal wàññi gas waaw wàññi gas instant bi amagoo leen certitude ba xam fa ngeen nekk ah, loolu de lañ bëgg suñu ko defalee ñu jël ndax foofu lañ ñu xamee lépp une décennie lépp fukki at nga nekk benn place buñ la fa jëlee wala ñu xatal la fa day xaw a doy waaye nag yàlla baax na waaw fii boobu lu ne xaj na fi mais yaa ngi koy waaj yàlla nañu fekkee te teel bu baax euh, yow ñaata am xar rek la ñu am lu lu ma am daal lu ne naa ko ci këpp li ma am nag laa xam bariwul ñaata million nga waaye li ma am daal xaw naa néew waaye danaa ko ci këpp xaw ma nag ñaata la bariwul ah? waaw ku dul jàmbaar mënu ko chaque jour ma wax yi ni sàmmkat yi nañu génn di di buuxante ci opération tabaski di fanaan ci tànt yi muy taw seen kaw ñu yëg laa di nga xam ne lii bëgg nga ko et mën nga ko am na ñu naan ma suñu liggéey mayuñu ko mais ku nekk am nga liggéey mais daf lay jaral nga jël ay xare teg fa ah métti parce que ñun li ñuy def nii dëgg la euh, njariñ li bari na laadum trop mais njëriñ gi pour mu dellu ci société bi ñu gis ci seen bopp mooy ñu mën leen fournir ay xaru tabaski loolu nag buñ ko mënatul sunu njëriñ bu lu mu bari bari dana des na éleveurs yi di génn nañuy produire ay xaru tabaski aussi soit dañuy métisser soit autosuffisance en mouton bi gis nga kenn duñu ko defal bay sa weew tànk ni ñoo ko war a ma commencé suñu bopp man ak yow ak mel ni yow yow boo produire donc cinq mouton tabaski la wala dix mais yow fournir nga sa famille bu keneen defee noonu fournir famille bu bu ci yagge duñ jéggaani dara milliards yi di génn man di di ñu koy xotti sotti sous région bi yéene naa leen ko sax waaye Sénégal laa ko gën a yéene ndax xawma lu sut Sénégal bugguma itam lu sut lu lu lu lu sut Sénégal ah bergerie alhamdulilah ku la bëgg a jot fa la lay wooyee laaj lay information ñu ngi dëkk parcelle Assainies unité 10 ci gàttal boo ke église parcelle wala nga egg ci sapeur yi kër Modou sax moom xaaral war war naa doy sama mag ju baax jooju mu ñëw këram Modou mbër sunu roi des arènes yàlla ci àgg moom itam ku fa àgg koo laaj kër Siré Jaxate borom xar yi rek. danañ la indi xale bu ci gën ndaw boo dajee ak moom ni ko. kër Siré mu la kër Tonton Siré borom mbéy. indi la nga ñëw ñu saafoon teg yow li ñu yàlla des néew itam. waaw ñu xool rek ñu ko bokk nit ñi mu yaatu daal man daal yëf yi na yaatu. ak ku leen mën a jox ak fu ngeen ko mën a jilaay ku ko mën a am. na yaatu na tas ci réew mi tas ci région yi tas ci sous région bi ñu dem ci continent yi dem fépp la laadum laadum fépp daal. laadum partout. numéro bi